waxtaanee li nga xamante ni mooy sunu cours de renforcement bi tuddee le CRAC ñu dippee ko cours de renforcement les académiciens barab bii nag nga xamante ni dañ ko sancoon depuis 2015 ñu nekkoon université Gaston Berger doon fa jàng ba dem ba niveau master ñu amoon yéene dellu si sunu dëkk amal njëriñ sunu dëkk Tiwaawan gi nga xamante ni lépp lu ñu am wala lu ñu doon participer na participer na si grandement ñu amoon aussi yéene nekk ay ndaw bëgg ci lu ñu jàpp ngir dimbale suñuy wayjur man dama teel a ñàkk sama wayjur bu góor ma dëkkoon ak sama wayjur bu jigéen kese mu nekk jàngalekat bu jàmbaare ma gis ko muy tuñ tuñi ma ni lii ma nekk benn doomu bu góor kese ma ni dinaa xar sama tànk tuwéy ngir am lu ma ko dimbalee loolu moo ma inspiré ma créé lu ni mel depuis 2015 ma nekk ci ak ñaari élève ñetti élève ñeenti élève ba yàlla tey dimbal lañu ba ñuy dem plus de cinq cent élèves yu ñuy encadré donc loolu dañ koy sante yàlla jullee ko ci yonent bi di ko sante aussi population Tivaouane bi yëpp ci confiance bi ñu accordel malgré sunu jeune âge ñu ngi jël seeni doom di ñu ko dénk am yaakaar bu baax ñun aussi mu jaral ñu lu nekk ngir ñu taxawu leen ba seen jàng mën a nekk une très grande réussite. deux deux mille quinze. deux mille quinze lañ ko lañ ko tàmmali. voilà ñi ngi woon Jidda nekkoon ci benn kër tamit doon fa góorgóorlu mais jamono di dox ba foofu xaw a xat ci ñun. Mhm. ñu xalaatoon nag ni fokk ñu ut bërëb bu gën a yaatu ngir mën fa dalal élèves yi barab bi nag bañ koy jël nekkoon na ci situation yu xaw a difficile daanaka sax vidéo yi buñ la ko wanee ak niñ ko def nii da nga naan ay jàmbaar dëgg fi jaar donc euh, pour ut benn bërëb boo xamante ni dinañ mën a permettre élèves yi ñuy jàng correctement ñëw léegi ñëw ñëw quartier ndut voilà salle de gym mooy la waaw. Euh, ñu gis ni école bi mu ngi màgg. Mhm. mais aussi euh, bu fekkee que ni yéen da ngeen euh, nekk ci lépp wàllu éducation. Mhm. baromètre bi ñu leen di nattee en principe dafa war a doon résultat yi nga xamante ni yéen a ngi koy am. Mhm. en naka ngay dellusi si ci résultat yi nga xamante ni année yi weesu am ngeen ko ci BFM wala mu nekk baccalauréat. waaw loolu moom dañ ci sawar a tontu parce que tamit euh, finalité coup de renforcement yi mooy promouvoir l'excellence ñooy dimbali xale yi ba bu ñu demee ci seeni examen ñu mën ci am ndam loolu nag yàlla mu ngi ci def sutura euh, ba biñ ko tàmbalee ba léegi li ñu formé ci ay étudiants rek ëpp na cinq cent parce que am nañ bac te fi mu nekk nii ñii ña nga France ñii ña nga Allemagne ñii ñu ngi un partout dans le monde lu weesu daaw rek li ñu encadré ci ay bachelier toll na ci cent soixante douze élèves nga boole série S beeg série L bi donc loolu day wane ni fii liggéey moo fi am jàng moo fi am série moo fi am engagement aussi moo fi am ñu bokk ko nag ak ay professeurs yoo xamante ni ñu ngi lycée Ababacar Sy ñii ñu ngi lycée bu lam lam ñii ñu ngi lycée Daaru bi nekk si yoonu mbooro ñu ngi si cours privé yi nekk yi nekk Tivaouane ànd si aussi ak euh, administration boo xamante ni macha allah tey peut-être ina la ñuy ëpp la ñuy dégg mais nag ñi nekk si ginnaaw ni may wax yéen nii Louga laa jóge mais bi may ñëw dama fekk ñoom ñu tàmbali lépp organiser lépp kër gi biñ koy defar na mu meloon ñoom ñoo doon xëy di ci nekk di bale di raxas di peinture da nga leen di gis sax yaakaar leen ay ouvrier mais cofeel gi ñu am ci coup de renforcement bi ak aussi engagement bi ñu am pour servir Tivaouane pour aussi être utile à la communauté loolu moo tax ñu am benn dévouement bu exceptionnel boo xamante ne tey mënuma wax dara te duma sede seede administration bu am solo bi may liggéeyal bi nga xamante tey mën naa ni CRAC bu àggee fii ak résultat yi nga ma laaj léegi à quatre-vingt-dix pour cent c'est grâce à eux ak professeurs yi ñuy jàppale. est-ce que mën nga dikkuwaat euh, fii au niveau de CRAC mm-hmm. yan catégorie élèves ñoo fi nekk c'est les collégiens les lycéens wala tamit ñi nga xamante ni ñoo nekk ci euh, primaire bi ñoom tamit euh, ils sont concernés par la formation qui se fait ici. waaw merci ci question boobu CRAC nag dafay jël en charge tous les niveaux. Mm-hmm. primaire ba terminal série littéraire comme série scientifique. benn série leen daawul encadre muy la série s mhm. te ren yàlla dañoo dimbale daaw ñu amoon ay élèves yu nekkoon seconde S am de très bonnes moyennes des moyennes de quinze seize ñu orienté en s ñoom nag ñu ne bëgguñu dem jàng jee feneen furul CRAC on a été obligé donc de leur créer une classe boo xamante ni day nekk pour la première s mhm. mais classe yëpp dañ leen di jàngale fii mhm. voilà professoral bi nga xamante ni wax hmm. euh, xam ñan ngeen ci collaborer c'est des hmm. étudiants yoo xam ñoo fiy jëw dispenser cours hmm. wala am na ay prof yoo xamante ni ci système bi la ñu nekk. Euh, daanaka seen moment yi nga xamante ni am nañu un peu de euh, liberté. moom la ñuy jël consacrer ko fi nga xamante ni mooy CRAC di cours de renforcement des académiciens. si man nag dafa am benn principe wala boog philosophie bu may liggéeyee. jàng dafa nekk lu sérieux kon da nga ko war a dénk ñu sérieux cest dire des professionnels en la matière yoo xamante ni ils sont vraiment assez fournis pour mën a def des prestations qui seront à la hauteur moo tax nag euh, biñ demee ba gis ni yaakaar gën na yokk dañoo dem di démarcher ay professeurs pas n'importe lesquels tey administration si corps professoral bi ils sont nombre de vingt les seize son des professeurs titulaires ci ay lycée ak ay collège quatre ñoo ci nekk des tuteurs te ñoom aussi ils ont des diplômes licence jëm kaw peut-être ils ne sont pas encore dans le corps mais ñoom ñu ngi servir dans les cours privés donc mën naa ni étudiant jàngalewu fi des tuteurs yoo xamante ni tey ñu ngi exercer pas de façon titulaire officielle mais ñu ngi exercer dans les cours privés donc loolu aussi dama bëggoon boo xoolee rek euh, sunu budget bi nga xamante ni la ñuy fay professeur professeurs yi day jege un million cinq cent kuñ ko waxul mën par mois waaw ah, parce que professeurs yi on leur paye de l'argent et pas nag des sommes dérisoires ñoom dañ leen di soumettre une proposition ñoom ñu delloo ñu ñu xool sunu capacité fu mu toll ñu honorer suñuy engagement rien que rek pour def ko pour élèves yi nekk dans de très bonnes dans de très bonnes conditions. une dernière question balaa ñuy terminer par rapport ak fii ngeen indi tey est-ce que am na ay innovation yu bees yoo xamante ni jël ngeen ko pour mettre les élèves dans de bonnes conditions même bu ñu jàngul tamit ñu war a toog ñu xaar ñoo xamante ni dina am lu leen accompagner comme du genre cafétéria espace wifi hmm. comme niñ koy gisee yenn zones yi est-ce que yéen tamit innovation yooyu vous l'avez pris en compte. merci innovation yi maa ko tàmbalee ci administration bi. Mhm. waruñoo nekk trop dans l' informel. Mhm. boo gisee bu ngeen defee tour bi dangeen gis ni administration yi administration bi ku nekk da nga am sa bureau bopp. Mhm. am ordinateur am machine photocopieuse am lép loo xam ne jumtuwaay la boo xam ne di ko mën a soxla si sa cadre liggéey. Mhm. salle yi fi def pour mettre les élèves dans de bonnes conditions ce sont des salles ventilées. bu ngeen duggee léegi di ko gis ay salles yu nu la defar ko ba mu aéré et puis ñu limiter ko à des à un nombre fixe. xam mhm. ni du ñu bëgg di déborder pour éviter yenn encombrement yi dans les dans les dans les salles de classe. Mhm. donc loolu aussi bu ngeen defee le tour ko terminer si benn minute rek si innovation yi ma doon wax. voilà innovation yi dañ ciy jàpp quatre au delà si cadre bi ñu changé defaraat ko euh, dañoo créer cette année ci benn. benn slogan bu ñu tuddee Daara Crack Daara Crack dañ ko initier tous les dimanches matin ñu ci liggéey ak benn oustaz bu tudd oustaz Mbay dëkk Fooñ dañuy jël élèves yi fiy jàngee ak niveau boo mënti nekk dimanche matin boo ñëwee 9h ba midi ñu jàngal la alxuraan gratuitement moo xam ngay ngay ijji moo xam ngay nafar moo xam lépp loo bëgg xam ci sa diine si wàllu julli ci wàllu sangu set lépp rek loo xamante ni dina la teg si yoonu siraatikal mustaqim dañ ko innové ren parce que Tiwaawan la nekk ku ne Tiwaawan ne Tiwaawan ville sainte ku ne Tiwaawan ne Maam Maodo ku ne Tiwaawan ne Serigne Babacar Sy ku ne Tiwaawan ni sama Serigne Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum kon ñun waruñoo def leneen lu dul tegu si yoon boobu parce que aussi c'est un c'est le droit le plus absolu donc loolu aussi dañuy permettre élève bu fi nekk rek dimanche matin nga ñëw nga jàng di nga fi fekk ay maître coranique ñu jàngal la li nga soxla xam ci sa diine ak ci sa l'islam beneen innovation bi mooy on a mis à la disposition des élèves un wifi euh, bi ma koy xalaat nag am na ñu ma ci déconseillé woon mani ni wifi bi sa sera un wifi sécurisé c'est-à-dire élèves yi du n'importe kell moment lañ ci am accès un deuxièmement aussi du n'importe quel site la ñuy mën a am Euh, la ñuy mën a am accès c'est-à-dire ay TikTok ay WhatsApp tout dañ koy fexe de sorte avec nos techniciens ñu sécuriser ko ba élève bi lépp lim soxla si wàllu jàngam rek si lay mën a am un accès. troisième innovation bi nga xamante ni mi en cours de réalisation des le mois de décembre incha allah dinañ ko dinañ ko appliquer mooy l'ouverture euh, d'un cafétéria ñu tuddee ko si cantine cantine scolaire wala crack loolu nag boo gisee benn espace la boo xamante ni dañ ci dañ ci def benn bibliothèque. mu nekk salle de lecture salle de conférence mais aussi mu mën a nekk un lieu boo xamante ni tey élève su jàngee ba wàcc dina fa mën a toog mu def ay recherche am parce que day am un accès gratuit si wifi bi dina am aussi accès gratuit si bibliothèque bi loolu yëpp aussi dañ koy boole walla si suñu cadre innovation dernière euh, innovation bi nga xamante ni ren bëgg nañ ko mettre en œuvre euh, mooy euh, loolu sax gars yi nee na la naa ko denc ba si kanam donc boobu da ma koy baax par rapport nag ak euh, li ma wax léegi suñu relation ak euh, institution yi fi nekk wala bokk les écoles avec les écoles moom mën naa ni on travaille en en en partenariat parce que daaw rek IPIS fa laa doon dispenser samay cours mais comme que sa crée un peu de zizanie gestion bi da daan xaw a difficile nga bëgg gérer ñi nekk UPIS gérer ñi nekk CRAC fële moo tax ren ma ni nañ ko def si benn milieu nga xam ne contrôle bi dina gën a mën a yomb mais yeneen école yi aussi dañuy am ay élèves parents dañuy ñëw jox ñu ay ka ñu dem ci école monsieur Diop si mel ne monsieur bu nekk Al Amin damay traité ak moom euh, Bachir euh, mi nekk Dabaax aussi damay damay damay traité ak moom euh, monsieur Magor Ndiaye aussi wax naa ko léegi damay traité ak moom yeneen école yi aussi kasaalika des fois ñu am ay problème de table banc ñu am relation si école yooyu ñu dem waxtaan ak ñoom aussi ñu amel ñu seen seen seen appui donc loolu par rapport nag à l'IEF bon l'IEF ñu entrer en contact avec l'IEF parce que nous ne sommes pas encore une institution boo xamante ni légalement constituée je peux dire donc euh, mais quand même daan nañ liggéey ak ay grand yu baax ku mel ni grand Khalifa Gaye bi dëkk Jidda vraiment daan nañu waxtaan moom ci lu bëri mu ñuy aussi venir en aide si lu bëri par rapport ak li ñu soxla si wàllu administration ak si wàllu matériel aussi donc loolu si wàllu koom gi aussi wax naa ko sànq euh, le CRAC c'est c'est c'est très lourd waaw parce que wax naa ko sànq boo xam ne budget mensuel bi ça tourne autour de un million cinq cent donc loolu aussi dafay xaw a doon lu xaw a waar mais nag dañuy sant yàlla rek beneen bi mooy cas social yi mënul ñàkk parce que fii moom c'est c'est un cadre social par excellence parents yi aussi dañuy ñëw yaakaar la wala élève ci boppam ñëw yaakaar la euh, te yaakaar dafa fort parce que romb nañ ay kër romb ay cours de renforcement ñëw exposer la seen problème donc li ngay mën a def en tant qu'humain mooy nga venir leen en aide donc mën naa ni fii 60 pour cent élèves yi dañuy fay mais 40 pour cent 30 euh, pour cent ñi ay cas sociaux 10 pour cent ay trian lañ ah donc loolu waaw ñooñu ay trian dañuy dàqante ak ñoom waaw waaw loolu loolu loolu daal moo moo nekk fii waaw lancer un appel rek li may wax ak ñi may liggéel chaque fois euh, man dama leen di wax ni coup du soir bi su tëjoon yàlla tere man damay retourner sama liggéey parce que maa ngi IPRES depuis 2018 di ci nuyuwaale le l' ancien directeur général ma Mamadou Diagne si Mbengue moom moom ma embauché foofu depuis 2018 mais bi ma embauché dama affecté woon Kolda ma ne ko man duma dem Kolda bàyyi sama élèves yi fii je parle si ay caméra laay wax parce que bëgguma ku ma vaar yaa ngi si mbeng dama yóbbu woon Kolda ma ne ko man duma dem Kolda bàyyi fi sama ay élèves c'était en 2018 moom mm, si la ma yóbbu Louga moom aussi il a été très compréhensif parce que xam na ni euh, li may def pour Tivaouane la pour jeunesse bi la donc di lancer un appel rek fii c'est la maison de tout le monde c'est la maison de tout le monde ak autorité politique bu mu mënti doon autorité administrative bu mu mënti doon boo ñu ñëwee en aide dañuy dañ koy accueillir parce que ci élèves yi lañ koy dolliwaat rek ñun bu doon ñun suñu ñun suñu bopp kese mën nañoo jàpp ci lu ñu yàlla jox as néew mais tey fii lu fi dugg rek dañ koy séddoo ak ñi fi nekk fexe ba mettre leen si ay conditions d'étude yu yu yu yu yu yu yu baax fii nag biñ koy defar góorgóorlu nañ si sunu poche bopp dëgg yàlla metti woon na trop liñ fi def ëpp na un million cinq cent mais nag da ciy saluer waale ay élèves yu nga xamante ni ñoo nekkoon si cours de renforcement bi tey yàlla def ñu nekk ay étudiants ñiy voyager ñooñu ñoo dajale seen ay cinq cent des fois damay gis benn étudiant envoyé ma mille francs ne ma ina jàppal ci loolu bëggoon naa def plus ma ne ko lii nga def rek pour man ay millions la parce que mënoon na la see bañ fekk di sant aussi anciens étudiants yi di sant administration bi di sant parent d'élèves yi di leen gën a ñaax ñu nag ñoom ñoo bokkul liggéey bi su ñu defee liggéey bi fii ñoom bu ñu àggee ca kër ga nañ ñu ci jàppale ñoom ñu veiller au contrôle des enfants bu ñu amee dara aussi loo xamante ni loo loo dama dem sonateel ut ay téléphone fixe suñu numéro téléphone di 955 88 87 bureau yëpp ku ci woote di nga am standard information boo soxla dinañ la ko jox nga mën a am benn suivi quotidien si sa si sa doom donc loolu laa amoon loo xamante ni maa ngi koy lancé di sant aussi presse bi di remercier encore sama famille parce que tey su ma demee ba àgg fii ñoom am nañ ci part de responsabilité bu mag di sant autorité yëpp di sant kilifa dëkk bi Serigne Babacar Sy Mansour sant daal ñëp di ñaan yàlla ñu passé une bonne année académique 2022 2023 ñu jaarale ko fañ ko daan jaarale di lancer waal aussi un appel euh, ci autorités yi nañ jàppale coup de renforcement yi ñi fi nekk bari na EMDG mu ngi fi di def lu am solo aatu cours privé aatu man Kande mu ngi fi ak yeneen cours privé Demba ngi fi cours privé Kër Pape Thioub ñu ngi fi ñu ngi nekk di def liggéey bu remarcable donc ñun aussi bu ñu tendre la main aussi ce sera euh, vraiment une très bone chose parce que Tivaouane lañ koy delloo di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa